waaw sama gars yi encore une fois maa ngi leen bëggee bu baax bon man nag dama fi ñëw ci taxawaayu nuñ ko mën a tuddee taxawaayu ñaari tànk mooy taxawaayu koo xam ne dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoo encadré compétition bi depuis début bi ba fii ñu toll en tant que hip wala en tant que activiste wala en tant que koo xam ne dafa nekk ci game bi beneen bi aussi ma yore entreprise ñu koy waxee ñu koy wooyee Biros Diamond ma nekk sponsor ci activité bi ma nekk sponsor ci compétition bi kon day nekk ñaari tànk mais nag juste damay waxee en tant que koo xam ne dafa nekk sponsor ci biir compétition bi juste nag luñ mën a wax mooy euh, liñ ci doon wut am nañ ko mooy lan tey wane nañ ay talent yu mat sëkk tey ñi fi jaar ñëpp képp ku ci joué rek ku dégg wala ku fekkee di nga xam ne ñii am nañ talent te loolu moo nekkoon importance bi lu fi nekk nag mooy que dañu nekk ci dëkk boo xam ne ku nekk li ñuy wax affaire de développement développement ku nekk ci sa bopp la nekk parce que ku nekk li nga nekk soo fexee mu développé ça signifie que yow bokk nga ci ñi nga xam ne yow nga développé réew mi

dos hanya potet peut-être tay mën naa ne su ma taxawal nako bay dos dama bëgg képp ku nekk ci hip hop nga nga tàccu bay dos. parce que tay mënoon na nekk ci studio di enregistrer di def ay sound di fayeku yam ci lolu mënoon na nekk radio aussi yam ci animation kese de fait que dem na nekk ci radio am idée wu tek dara pour jàppale ay frères am wala pour promouvoir rab bi pour gën koo may doole kon loolu c'est quelque chose boo xam ne war nañ ko saluer loolu aussi ñi ci nekk ñëpp bëri nañ peut-être mën naa am ma fës ci mais ma meen Jaafari Baol Vision moom tam mu def ci liggéey bu am solo li ngeen fi gis lépp ci image bu nice lépp moom moo ko liggéey ma meen Jaafari ngeen tàccu ko parce que dañoo nekk ñoo xam ne yàgg nañ leen xam ci game bi peut-être dañu toogoon rek nopi mais dañu dem ba xamné ñun ñun dañu nek ay serviteurs hip hop tay ñun mënuñu tok di sétane game bi il faut que ñuy dugalaat suñu loxo mo waral li li nak du yam fi que compétition bi amna première édition dina continuer mo men kenn ki la aussi mi ngi pare ay affaire ñun mom luñu paré moy lan lepp luy jëmele kanam game bi dinañ ci dugal suñu loxo ci nuñ ko mëne Biros mën nag gis nga éléments yi nga xam ne ñoo fi présenté wu peut-être dañ ne quelques éléments rek ñoo fi ñëw mais ñu leen di fàttali aussi suñu bopp service traiteur am nañ ko ku organiser gala wala ngénte wala lu mënti doon boo ñu wooyee dinañ la ko gérer nice ubbi nañ aussi benn benn place spéciale lu ñuy wax ice cream mu nekk tableau caabi bientôt bientôt dina ubbi parce que lan moo tax lan moo tax ñu def ko lan moo tax ñu def ko tey par exemple fii glace glace bi nga xam ne moom la ñuy jaay comme ça ñu koy détaillé ci yenn épicerie wala leneen muy ay pot wala mu nekk ay ay bag yoo xam ne dañuy tibb di jaay lim ni mu doon demee mooy que chaque fois dañ doon dañ doon jugee dakaar par exemple oto bi moo doon ñëw di livrer ñu koy jaay fii à chaque fois que. événement am wala dara rupture day am day manqué ñun dañ leen indil lu ñu ko mënee waxee industrie fii lañ koy liggéeyee di ko liggéey comme ni ko gars yi joobee di def ay leen waay di def ay pot pot yi ñu koy livrer épicerie yi di def ay bac di ko yóbbul yenn restaurant yi fi nekk je pense que ku dem mbégte mi da fa gis glace glace boobu fa ne ñoom dañ ko doon jëlee ji Dakar tey ñun ñoo koy liggéey di leen ko jox te machine yaa ngi tableau caabi macha allah ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo waaw kon nag xam naa peut-être après dañuy demaat ci beneen phase. Brosse Jama nag Brosse Jama defaral na leen benn gato boo xam ne juste. mooy gato bi ñu war a partager vainqueur bi. waaw moo koy partager. ok pour aussi pour wane benn fair play boo xam ne moo ci am mooy ñun ñëpp ñoo ko bokk. mais elle affaire bi ñaari gâteau la de. waaw. am na bu nekk ci kaw am na bu nekk ci suuf. léegi bu nekk ci suuf pour tegaloo nag bu nekk ci suuf pour ñàll. waaw xam nga vainqueur bi moom. waaw déjà moom moo moo mooy. mooy moom bu mag bi. waaw moom d'accord naa. non moom mooy distribuer. waaw de gato la comme partage la. ok incha allah partage mooy ñëpp dañ ciy jot. léegi bu nekk ci kaw nag. waaw mooy partage bi rek. benn ah lépp ci la bokk lépp ci la bokk. waaw partage la pour wane fair play. pour wane ne lii ñun ñoo ko bokk. Ah. pour wane que ne jàmm la. bu lii passé même vainqueur yeeg vaincu yi dinañ xool euh, aussi. amul xuloo amul xeex def pour ñoom incha allah. Mhm. public bi aussi ñu ngi leen di bëggee ñëw ngeen carrément wane ne public bu hip hop. massivement ok mention spéciale su ñoom. bu fi jógee. acca gars yi tàccul leen ma ko bu baax a baax.